ahlan bikum tey la njiiti réew mi Macky Sall di door lancement ndimbal dund gi mu war a jëmale ci askan wi l'observateur moo ñu xamal ne fay génn ca pale ba tasaare dundu gi ci senegaal waaye xam na ay quartier Ndakaaru ñu bëri fa ñoo foog ne fa ñoo xam xaalis waaye ndekete yoo ñoo gën a sonn ñàkk ci réew mi yow seetal Almadi Fann Dakar Plateau xam nañu fa sonn de njiital conseil départemental bu mel ni ku naan Macky fexeel nag ba ngir yàlla ndimbal li ñi ko yelloo dëgg-dëgg na ngeen leen ko jox ñi xam tuuti bu leen kenn jox waaye ña xamu dara sonn ñoo ko yelloo vox populi na diiwaanu kawlax ndangaan journaliste ya taskatu xibaar ya ñoom it dajale nañ lañ xam jënd xay saako ceeb jox ko préfet bu diiwaan ba ngir wane na ñoom journaliste ya seen ak solidarité jàppale askan wi ci coronavirus bi def nañu ko comme ni ko seen naataango yi defee la mu def nag moom Senelec mooy hab communiqué la yónnee vox populi ngir xamal askanu Sénégal ne ndimbal li état bi war a fayal facture courant yi 5 avril bii cinq mai lay tàmbali ku xas fay ba pare nag wala nga jëndoon courant ba noppi fañ la yokkal crédit source a yéen kaay ne xam na ñeneen ñu ñu war dimbale mooy baykatu Sénégal yi a yaaw seetal ren mbay mi boo moytuwul carte gi dana fa jaxasoo benn baykat boo moytuut ren du am engrais ah réew yi nga xam na ñoo doon jox Sénégal engrais muy Chine ak Italie fi mu toll nii xam na la leen luñ tal coronavirus bii moo leen jaaxal FAO ne gis nga wàllu dund lekk lu nit sax ci gémmiñam moo nar a ñàkk ci àdduna te pétrole ak gaz bi ci Sénégal wàllu liggéey ba projet bi lépp taxaw na ba tax yéene kaay bi na yàlla bu fi lépp doxee sax fartaab bi aljana maanaam ñu ñàkk suñ pétrole bee gaz bi ah buñ ko mënta génnee xamul njëriñ di leneen lu xam njëriñ lu état bi def mooy jàppale liggéeykat yi ba buñ leen dàq ci barab yañ doon liggéeyee ba tax si du quotidien na nguur gi kay sëkkatal na patronat bi laas yéene kaay na ko moo yey de ndax liggéeykat yu bëri seen entreprise yi fañ leen nar a kajji football dàq ndax mënuñ leen a fay Cheikh Diop CNTS mel ni ku naan leen yéen tamit yéen laa wax état bu ngeen bañee entreprise yi yéen liggéeykat fexe leen ba bor bi nga xam ne la entreprise yoral état bi ngeen jàppale leen ci enquête yéen a kaay na ko yëf yi sax nekkut bëgg a dàq waaye nga doon am kàttanu yor say employé di leen fay ndax coronavirus bi fa xamal ay jeexatal ci entreprise yëpp ñëpp am problème donte nguur gi nag fay naaj ci la war a faj critique yéen a kaay na ko Macky daal moom li wax leer na nee na bu fi kenn dàq sa kat ay chômage technique ak technique ci yem nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy njiitiram Macky Sall woote bi mu woote woon ngir askan wi dugal seen loxo nag xaalis dimbale xeex ak corona bi nit ñi wuy si nañ de yaaw seetal ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci baay defal yàlla ñaar fukki milliards ak juróom-ñett ak lu topp dajale nañ ko fi Vox Populi na ko bu ko wàññi mille milliards yi makki bëggoon ca force covid 19 ba dajale nañ ko jëwriñ ji moo ko wax la mu wax moom critique yéen a kaay mooy démb Sénégal fukki doomu aadama ak juróom xamaat nañ fi jàngoroy korona gi aay ma nga yokkooti rek de donte yéen a kaay bi nee na ñaari fan a ngi nii nag amuñ cas communautaire te booboo garaaw Vox Populi naka ma yokkale ci bi ci gën a neex lu mësta am ci corona bi am na démb Sénégal a eh, seetal li mu ñi nga xam ne ñoo tëdd hôpital ñoo gën a tuuti li mu ñi nga xam ne ñoom lañu faj ba ñu wér ah xoolal téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom lañ faj ba ñu wér téeméer ak ñaar fukk ak juróom tëdd la la hôpital loolu kay jéego yu am solo la baax na Sénégal rek ko defagum ci àdduna bi de jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Abdoulaye Diouf saar ne hee def leen ndànk de bu mu tax ñu naagu dëgg la naam cas contact yi am ñu ngi leen di topp waaye bu ñu fàttee cas communautaire wàll la ko tax xamuñ ku la ko wàll boobu bi te mi ngi ci réew mi ba tax maa ngi woo ndaw Sénégal yi ñu xam ne xeex bi seen xeex la yëf yi amut secret li kilifa yi aaye nañ ko bàyyi liñ santaane ñu def ko turbine yéen a kaay na ko voilà yow nag yaa wax wax ji gis nga dakaar ñoom faale wuñ dogal yi kilifa yi jël lépp lañ leen aaye am na ay soon yu bëri ca biir dakaar ña ngi koy def dajaloo marché yi mbedd yi nuyoo sol oto bam fees ak yeneen ak yeneen yéen kaay bi ne ñuy foogoon a fa ñoo dof vox populi na ko na sa xol sedd nga waa dakaar yi font gañ nekkee jeex na bés ni ki tey yow seetal gouverneur diwaan ba Alassane Sall génne leen a armée ba militaire ya ñu fekk si police ak gendarmerie ngir ñu ñàkkanteeg ba ñu respecté ndax man mii di wax ak yéen chauffeur laa bët bu set ma yóbbu 7500 fay kenn ku ne foog ngoon presque ràpp karaj kenn du génn kenn dugg ah yow Dakar la fa xam du jàmm di téeméeri doomu aadama ak juróom-ñett fukk ak benn quatre ñoo fa am jàngoro ji ci deux feebar yëpp ña nga di vingt-quatre heures yéen a kaay ne gouverneur fa nee na Dakar ya yenn commerce yi tere nañ ko fa marché caaxaan-caaxaan yooyu tëj nañ leen ndajeloo mbooloo mu bëri jeex na Dakar yéen a kaay bi na Dakar kay kon nar naa widd gouverneur ba moo na leen caaxaan faaxe tàggat yaram mbay ñaa léeg-léeg mu dox léeg-léeg du dox ñaar fukki jonganteeg ñett ñeenti bal la fi dugal moo daqarate occasion ci a ko noppaloo à la traite muy Tyson ak Yékini sunu làmb moo xëy di laajte na waa léegi xanaa ñoom ñaar duñ def jubilé maanaam bésëb tàggatoo ñoxo bàyyi ne loolu ñëmuñ koo ñàkk a def lañ du def ñoom chrétiens yi ci Sénégal mooy feetu pak seen njeextelu koor goo xam ne ren du am ngalax te du am dajaloo dana am sénégalais yu jooy ngalax gi de dañ ko doon marqué la mu marqué moom l'observateur mooy benn imaam moom lanu fekk ca jumaa jëm doon jullee ñu jàpp ko na ko ràpp allah yëfi yaa nga am ca kusaanaar imam ba daal ànd ak mu bëri dugg dugg ca jumaa ja tëju ne yooyu yaa ñu ngay julli takk der ya fekk leen fa ubbi jàkka ja fekk leen ñuy julli waaye bi ñu xoolee gis na li ay police lañ ci la ñu kos almet laay laay la laaw ja footool di ko dégg dàll yaag mbaxana ya taluñu ko sax fu ne la ñu jaar imaam ba ak ñeent ñu doon julli ñoom mujj ñoo raw fañ leen a jàpp mu ngoog nag leen a jàpp